waaw maa ngi lay fay soxna Aje di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal sunu borom yàggal ko te mu wér eh, ba naal yi mu am ci yoonu Seexul Xaddim mu matale ko te ànd ko taalibe yi eh, di ñaanal këru tarixa diine yëpp sunu borom sàmm leen te aar te yàggal leen nu wér ba yéene ji ñu am ci seen yoonu maam yi ñu matale ko te ànd taalibe ñoo ngi baalu ñëpp ak te di leen baal ak te di leen jaajëfal di nuyu ñëpp jëf jërëjëf mbokk yi tey li ñu nar a waxtaanee bari na loolu ndax euh, gis nañu li nga xamante ni jot naa am ci xewam bile euh, gis nañu fa koo xamante ni moom yaakaar naa ñu bëri surprise la leen def muy Sidi Diop gis nañu Waly Ballago Seck teew ak ñeneen ñi nga xamante ni teew nañ ak ñi teewul tey li ñu war a waxtaanee bëri na yi ndax du xew mi dong bëri na actualité yoo xamante ni danañ ko faram fàcce mais dañ koy dooree rek euh, ci xew mi keroog nag am na surprise yu bëri yoo xamante ni am na ñu gis Waly Ballago sekk teew wax dëgg neex yaa ma jëmmalaat la ñu gis tamit Sidi Diop mi nga xamante ni yaakaar naa ne Euh, ràññeewuñu ko ci seen biir mu daal di teew keroog xew bi euh, délégué Ama gis nañu euh, na mu na mu na mu amee sa diggante ak célébrité yi gis nañu ku ci mel ni Sidaat ak ñeneen ñoo xamante ne teew. waaw maa ngi leen di jaajëfal vraiment di sant ñëpp di gërëm di jiital ci siyaar bi ak jaajëfal bi son excellence président jàmmi réew mi di Wally Seck xam ne wax dëgg yàlla sama sama lépp la di sama artiste di sama wëllëre di sama mag di sama lépp donc maa ngi koy jëfal ci teewaayam maa ngi koy jaajëfal ci membre de gouvernement bi nga xam ne ànd naat ñoom ñoom ñëpp euh, su ma limee rek mën naa wax ne damay juum mais bu ma waxee monsieur le ministre su Dieng teg ci tamit tumaan yi ah ñoom caddi caddi Ousmane Thiam Dogo ah euh, chef de protocole di Ndiogu mbay ah, at Cheikh Mouhamadou lamin Baara ah, at. Euh, Euh, ni ñu koy waxatee monsieur le ministre Omaro ministre de commune porte parole euh, di jaajëfal tamit ah président assemblée di papa Keba Seck nga xam ne moom moom laa waroon na jiital ndax mooy sunu papa démb keroog ci dimanche gi ci lañ ko fal sax ne ko jox ko président assemblée bi ginnaaw bi nga xam ne kin ko joxoon daa génn àdduna kon donc moom lañ ko tapal te mu nangu ko ndax dëgg yàlla. keroog dimanche yu bëri xew na fi di nuyu nag euh, euh, nuñ koy waxatee sax kii euh, sunu opposant yi nga xam ne ñëwoon nanu tamit di rafetlu seen teewaay waaye tamit daa am benn jëmm joo xam ne daa ñëwoon ah muy nuñ koy waxatee sax am nañu ko Omaro tuddeeti waaye sous préfet bu bu Nord Foire muy Pawlish mbay démb la ko Omaro far ministre de la jeunesse donc waaw démb lañ ko fal ministre de la jeunesse garaatam yéeg na fi mu toll nii tumaani da mel ne jox nañ ko chef de quartier bu Kaolack kon donc waaw parce que yóbbu nañ ko chef bu Kaolack ginnaaw bu nu defee conseil de ministres ba pare ci lañ ko tapp ci dimanche bi xam nga dimanche lañ doon def conseil des ministres fii ci man ci lañ faree Papa Keba ministre de la ci lañ ko faree président assemblée kon ministre de kii euh, Pawlish moom lañ jox ministre de la jeunesse ke tumaane yóbbu noonu ko chef de quartier bu kaw waaw parce que tumaane liggéeyam tumaane liggéeyam daa des fa nii day nelaw rek day nelaw rek day nelaw rek ñu defee kii nag ñu xam waaw affaire bi doxul ñu wàcce ko jox ko euh, police ñoo ngi ñoo ngi leen di jëfal ci teewaay bi nga xam ne président ànd naat délégation bu am solo bu mucc ayib ñoom ñëpp ñëw wax dëgg yàlla waaw ministre ba Badiane mi nga xam ne moo yor wàllum seen beet pecc mi di sama na nit di sama xarit nag ma di ko baax la teewaayam maa ngi koy rafetlu wax dëgg yàlla ba mu ñëwee ca gannaaw la dem maa ko fekk ci biti fekk xëcc ci dugal ci biir kon maa ngi koy jaajëfal ndax foofu moom foofu la war a toog rakkam moo xewle woon nitam moo xewle woon. ngi nuyu tamit ki nga xam ne moo di Cheikh Anta di rafetlu teewaayam at yëngu bi nga xam ne def na ko fi di nuyu xaali mbay doo ko tamit ah wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax mënoon nañoo ñëw rek toog. waaye defuñu ko dañoo jël li nga xam ne mooy seen culture li nga xam ne moom la ñu man muy ay tamaat ya ñuy àndal ñëw dooleel bis bi Lamine Thiam Dogo ñoom ñëpp ku lim daal da nga jum ah donc maa ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax a baax a baax di jël ci jaajëfal bi nag di ko teg ci loxo président mu tegal ma ko ci premier ministre mu jox ko ci membre gouvernement bi ñëpp dina wax ne kontaan am naa tamit mbégte di jaajëfalaat président dara euh, Waly ndax keroog ku nekk gis na ne yàgg na fi te mosu ko gis mu dem ci benn événement ba jël fa temps bi mu jël ci sama temps bi kon lii moo lay wan ne bés bi yitteel na ko lii moo lay wan ne man yitteel naa ko lii moo lay wan ne man ñor naa ko te lii moo lay wan ne ñor gi ma ñor moom delloo na ma loolu leneen loo xam ne Wally Seck daf ko wane ci sa diggante ak ak moom parce que gis nañu temps bu bari bi nga xamante ne jël na ko ci sa diggante ak moom waaye tamit témoignage yi nga xamante ni vraiment xaar na ko fa yaakaar naa sa bàjjan dégg nañ témoignage yi nga xam ne def na ko waaye ay seede mu mel ni dafa am leneen loo xam ne dafa dox ci sa diggante ak Wally parce que bëri na xew yoo xam ne fekk nañ ko fa mais temps bi ni mel ak tamit wax dëgg neex yàlla yitte gi euh, dañ ko nemmeeku par rapport ak yeneen waaw maa ngi maa ngi jiital sax di nuyuwaat première dame soxna Aïdara bi ma bi ma jotee di ma ndokkeel moom première dame dafa ni ma président ci boppam bu dafa naroon a dem sax moom moo buggoon a dem Gàmbi ñaani waaye mu doon tëgg ci samedi bi war a xëy war a dem nelaw ci journée bi moo ko moytu bu fekkoon tëggul moom ci boppam mooy jël avion dem ñaani donc première dame wax na ma loolu kon xam nga ne waale bis bi ñor na ko te bis bi yitteel na ko bi mu fi ñëwee na yaakaar naa rek yàgg na fi de ah. bi mu paree. mënoon naa génn ca baas ba dem ñibbi dañuy déedéet nañ dem ma xool yéeg ci kaw toog ñaan naan kafe doo ko dem te gis ngeen ko bi mu jeexee dafa àndat man romb ñi nga xam ne ñoo di traiteurs yi xool li ñuy liggéey mu rafet mu ànd ñëpp yéeg ci kaw yàgg na fii tamit ci kaw ba dem toogal be sunu benn sëriñ sañ asan waxtaanan moom lu yaatu doo ko dugg ci néeg bi toog fii jël fi ay photo am ñum photowal doo ko dem kon lii moo lay wax ni jox na ma cër gi ma ko jox euh, respecté na ma ni ma ko respecté bàyyi na ma xel ni ma ko bàyyee xel donc kon maa ngi koy ñaanal ci barkeb Serigne Saliou yàlla na ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla aar yàlla na ko yàlla yiir yàlla na ko yàlla laq fu laq yeegul yàlla na ko yàlla xam nga lan mooma keroog maa ngi toog ci jotaay bi ndeysaan bi waali toogee ci base bi sama ma maa ngi dem wax sama xel ma ne kenn de xam naa ne kontaan na tey muy Mama Diaga parce que Mama Diaga dafa a bëgg. ma am bis bu mel nii ba waale teew ci benn bis daf maa dem këram am na maire bu fa toogal mooy meer bu xees bi muy toogal rek ba ma tatataa kii damay fàtte tur bi tata kumba yaakaar naa noonu la tuddoon maa jàgg ne ma boo amee bis day ah nga xam ne sama doom nga barke boo amee bis bay jël soxna di nga xam ne sama doom la kon tey lii de bëggoon naa mu fekkee ko waaye mel na ne fekkee na ko moo tax ma ne ko mel nen na fekkee na ko te xam naa ne xolam sedd na lool ci jotaay bii nga xam ne am na ci sama bis bi te it beneen bi maa ngi leen koy leeral rek ne leen sama ànd ak waali du affaire de internet wala dara suñuy maam la woon te bi ma bi ma koy nettali ma ngi toog wax naa leen na mu demee ba yàlla moom papaam natt ko ci Ahmed Amar comme ni may àndet waali noonu la Ahmed Amar doon àndet coon Seck te c'est la c'est la famille ñun ñëpp benn famille bi la Ahmed Amar ak sama maama bokk mm-hmm. ah kon c'est la famille nee naa leen tamit sëñ Fallou Amar moom lañ tuddee sëñ fàllu Benjamin Gumba Anta Ndiob lañ moom lañ tuddee sëñ Gumba Amar muy loo xamante ne nii que ci sunuy maam la woon diggante gàddiyel maareen ak jéemu na sukkeer te loolu xam nga ñen ñoo ko ma ngi mel ne nga ni Dakar ne Thiès te yooyu yëpp sama maama leen ko jox ñu ñu ñu dem tànn ay dëkkuwaay kon loolu lu yàgg la moo tax ñi nga xam ne ay màggati faramaareen la yooyu di jéem a ay nit yi nga xam ne ñu ngi jéem a ger di jéem a yàq sama digganteet moom nañ toog te noppalu te xam ne. délégué euh, wax dëgg ne yàlla gis nañu euh, saa su coow amee ni ngay farloo ci sa diggante ak Wally sekk saa su wax amee délégué euh, défense bi nga xamante ni dafa koy jël quand même mais dafa bëri ñoo xam ne dañu yàkkamti sa diggante ak Wally Ballago Seck coow am ci ba yàqoo am ci mais dépp ngeen di ànd ak léegi gis ñu benn yàqu-yàqu boo xam dafa am seen diggante loolu lan la ak lan nga def ñi nga xam ne dañu yàkkamti sa relation ak Wally yi parce que dëggu rek ak gëm ma doon damaa gëm sama bopp nag balaa dara xew tey bu ma ñaanu ma ko yàlla tey bu ma waalee defoon lu ma naqari billaahi nit du ko xam tey du àdduna du yàgg ba ma toog fenn di wax naan waaye def na ma lu ma naqari dinaa ko bës sama biir xol ba naqar boobu jeex ma toog àndaataan moom te du ma toog fenn di yàq di ko wax wala ma koy def xam xaw ma loolu xaw ma loolu dar mànko la nekkul ci man moo tax ma ne sama digganteen moom gaa yi dañuy sonn mais barkeb Serigne Saliou mi ma yaakaar mënuñu ci dara te du yàqu te beneen affaire naa leen ko wax aji kenn mënumaa jënd pour leneen loo xamante ne nii que di ma fay xaalis pour di jéem a di ma jéem yàq yàq madwaali wala di ma fay xaalis pour jéem indi sa wet wala nangama nangam nag billaahi wallaahi wa taalaahi bu dee nit man na ko yàlla bu ma gisee sëñ Saliou mi ma yaakaar àdduna àllaaxira ma man du ma wax waali lu ñaaw xalaatuma ko te du am sama digganteen moom tamit mën naa wax ne lu sëriñ bi defar la lu yàlla defar la ndax xamuloo tax aji li ma dégg ci waali man li ma dégg barke leeru alxuraan ñi àndat waali bëri na ñoo xam ne bul leen ko yeneen ñu découragé fay ñëw directement délégué parfois ñu gis ñoo xam ne dañu naan délégué euh, dunguru la ànd ak Wally Seck parfois ñu dégg ñoo xam ne dañ lay saaga ci internet bi nga baal ma ci kàddu bi parfois am ñoo xam ne dañuy yëkkati baat ne délégué góor jigéen la nga baal ma ci kàddu gi te kàddu yooyu yëpp nga di ko dégg te dara waralu ko lu dul sa ànd ak Wally sekk lan la luy problème. mën naa laa tegal benn audio wala audio bi benn waaye ma ko envoyé xamul lan la ci jublu. Mhm. dani ma mag rak benn rakku waale laa xam la ci jublu woon pour ma ne ko mu wax ma wax yu ñaaw pour ma tontu ko tontu wu ñaaw pour ne ko yaatuwaale jaar foo xamante ne nii que tey jii dina am la mu bëgg waaye déglu rek ma tegal audio yi. waaw délégué Amar. Euh, ça def naka moo show yi maa ngi lay pick maa ngi lay bëggee yaa ngi am jàmm man la beneen du frère Wally maa ngi fii biir Amérique Washington mais dama dama mais dama dama nga bàyyi imposé bi nga imposé sa bopp Wally nga bàyyi fenn damaa bëgg nga bàyyi imposé bi ngay imposé sa bopp. délégué defal sa bopp ab nit te nga nekk nit te bàyyi sa fen gi duul gi dajale. délégué defal sa bopp ab nit. sa baay yàlla su boom dogal na gaañu na yàlla ko yàlla yaram sa baay bi mu gaañu si biir kaso bi la la fekk. yow génn nga li ngay def si bàyyi jàmbur yi dama nga def ko sa baay. demal ba sa barab bu bàyyi ba boo aajee nga koy bare di ko ñaanal te yàlla yërëm ko jël ko mais nga topp ba ba bàyyi waali sekk ah. dégg nga ko bàyyi waali ah, sekk di ko defar ah di defar barab bam bi loolu sa dëgg la parce que da si am mais kenn du am sa bàyyi di ko wocc ci maam di dem si bàyyi jàmbur yi délégué waali bugg la yow yaa ko bëgg di defal sa bopp ab nit. nga ko xam nga la jubloon pour wax ji mu wax ma ko mu dugg sama xol ba metti ma. mën na ko yaatu waali jaar fu ñaaw xam nga ma wax parce que ah, voilà am nañ tey ñoo leen doon wax lii dañ lay booleet ki nga tudd ci vocal bi jaar fu ñaaw <laughs> mais du ko am xam lu da du ko am kim ci tudd moom ci boppam bu génnoon sa wax ma lii du ma du ma metti est-ce que comprends nga fi maanaam par exemple euh, allin sekk ci boppam bu mu envoyé woon audio bi ma xam ne kii Aline Seck la mu wax ma wax ji du ma metti parce que intéressé wu ma xam nga lu ma intéressé man Wally maa ko bëgg te yàlla tax la may def ca barabu waay baayam moo ma ko sant di ab sas ma sañ koo def la may def sama baay nag concerné wut kii que ce soit sama baay la ba mu may jur moom baayam fekkee wut ndeyam fekkee wut moo tax yi at yeneen nag yu gën a garaaw ay vocal yoo xam ne xaw ma leen saaga fu mu gën a ñaawee moo tax man lañ man liñ may yeen à cause de Wally am na ñuy nekkat Wally laa wax kuñ ko ci yenoon ko découragé. ak wax yi ngay wax yaa ngi dund lu mel nii ba pare nga nga tënk ko maanaam nëbb ko ba sénégalais yu ci bari bari xamuñu vraiment li nga xamante ni danga koy dund ci sa diggante ak Wally ak li nga xam ne yaa ngi koy dund comme menace. waaw moom laa lay wax man damay dox ba ci yàgg taal sama oto am na ñoo xam ne sax moto lañ yoroon karma mais man xam suñ borom def na du ma ragal fit moom am naa ko ma génn riposté waxat ñoom waaye bi ma génnee sama fetal bi ñoom ñëpp tasaaroo. moo tax man la li may daj ci am na ñi nekkat waali laa wax buñ leen ko yenoon ñu découragé xam nga ñu découragé liñ liñ may yen dafa diis ci ay nit yoo xam ne xaw ma leen xam nga kii dañuy frère waali ma ngi uh, États-Unis tey li am na ñoo ko doon yen billaahi seen àndal waale dañ koy dañ fi lañ koy bàyyee sax wala bu leen waale waxatee ci armée re nangam ñu ne ko demuñu parce que fii lii day metti seen xol mais man gëwuma yooyu lii mënumaa découragé lii mënumaa xoqatal ba àdduna di tukki gaynde man du ma mos a war waali sama àdduna barke leeru alxuraan parce que defuma lu ma defuma moom defuma lu ma koy waree <laughs> defuma lu ma koy bàyyee nit bu ma joxoon un milliard wala nit ñëw sama xew jox ma lu bëri xëy mu xëy di yàq waale damay boole lu bari la ma jox dal ci kawam delloo xaalisam wala ma lekk xaalis ba pare attaqué ko ndax moom ko may donc maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi leen di wax ne que na seen ñi nga xam ne tamit ay fans waale lañ. ñi nga xam ne tamit ay yaay waali lañ ku ci mel ne maman Piro benn mère la boo xam ne fan ya gis ngeen ko waali dem na ci moom photo woon moom to waali toog ci suuf mu toog ci bi kooku rek nee naa waali boo soxlaatee ñaan demal ci moom mu ñaanal la nga def ko wéeru waaye maman Piro moomu bëgg gi mu bëgg waali at ak njabootam mère bi man xawuma de ci internet la ma gis woo ma téléphone recevoir ma këram def ma comme doomam ndax ni ma meloon waali booy wax ci waali lu rafet di wax ci waali lu baax dalay jël teg la foo xam ne tey jii day mel na yaa moom moo la jur moom mama mama Piro te ñooñu ay yaay waaye lañ te dañuy julli di jaamu yàlla yàlla lu rusee na leen benn affaire ci julli gi ni julli di fonk gi ni fonk yàlla te mère boobu day dem màkk lu bëri buñ ñaanalee waale mu dal ko waaye ñooñu buñ ñëwee ba di ma ñaanal moo tax waalee tax di muy mama Piro maa ngi koy sant di ko gërëm di ko wax na xelam dal te xam ne waale mi nga xam ne doomam la du yaafus man mi nga xam ne tamit maa ngi nekkat waali du ma yaafus tey du ma mos a découragé tey du ma mos a xàddi bu waali bu waali doon seetlu ñi mu àndal par exemple ne bàyyi na way toog ne yoratul man délégué Amar maa njëkk a bokk ci ñi koy yëkkati ba dootul laal suuf parce que du ko mos a baddi beddi par exemple bi Cheikh Amar posé toog jàpp ñàmburam ñëpp daw di moom mais nag sama deret la te am na deret yu daw de mais man bokkuma ci ñu raw parce que gor laa bu ma xasee téye te naa tey waale bu lu mel noonu bu ko doon def di seetluwaate billaahi wallaahi wataalaahi chaque jour que jë du ma ko fréquenté xam nga du dem kër waale mais chaque jour que jëfee dina ma gis ma koy protéger di ko yëkkati lu ma am bokkoon moom ba yàlla ñëw waaw parce que foofu laa nekk at moom cofeel la. lépp am coow li am dama fàtte. dama ci woon après dama koy tëjee sax mais après dama bañ dem ba ci kanam ma tëjee ko remercier sunu opposants yi nga xam ne ñëwoon nañ voilà incha allah. mais malgré lii lépp am coow li am délégué nit dab ko fi bëgg koo faat délégué eh, nit ñi di ko envoyé message di ko saaga ak ñi lay woo ak coow li ci internet bi est-ce que mës nga ci toog ak ki nga xam ne da nga moom nga bëgg te jàppee ko dara lu dul eh, Serigne Touba ak Serigne Saliou muy Waly Ballago Seck ndax lii nga xam ne yaa ngi koy daj mës nga ci toog ak moom waxtaan dee mosu am nag <laughs> waale xaw waale mosuma toogal moom di wax di wax di waxan moom ci sama jëmm ji wala dara wala ne nit ñi nangam nangam boobaa ma nekk naar fekk man lañ koy wax dama koy assumer te denc ko du ma mos toogal moom naa ko nit ñaa may def lii wala nit ñaa ngi may def lee waaw ah, non non mosul am waaye mosuñoo toog di waxtaan sax keroog kàddu yi ma jël foofu ci baas bi est-ce xam nga ne boo xamee délégué muy wax dëgg-dëgg di nga xam ne délégué mii di wax ci baas bi bokkut ak délégué muy wax parce que moom bu xasee ba toog suñu borom mooy def ci man ak rusaange ak euh, kersa guy dox sama diggante moom ba du ma mën a wax waaw loolu am. délégué euh, dafa am beneen remarque boo xamante ni vraiment dañu ko dañu ko def ci sa xew bi Wally sekk ñëw na gis nañu euh, ku ci mel ni Sidi Diop ñëw Sidi Diop dinañ ñëw ci ñëwam mais dafa am leneen loo xam dañ ko gis muy euh, faramaare ni dafa am ñu des ndax gis nañu ki nga xamante ni moom moo di Benjamin gisuñu ko mu ñëw te gis nañu bi muy amal programme am ca arène nationale délégué teew nga fa euh, lu waral gisuñu ko gisuñu tamit ki nga xamante ni moom mooy mbay euh, mbay si njaay euh, vraiment Lille Pro rek la ñu gis ñu bëggoon xam tey waa lan moo waral tey ñooñu nga xamante ne ay cadre lañ ci biir Faramareen gisuñu waaw Lille Pro moom sama waay la moom ndeysaan ku baax la moom yàlla dogal na ne sax bu ñuy dem ay concert dëkk génn dëkk biir yooyu bu jeexee sama oto lay yéeg mooy nit ku baax koo xam ne ku ku ku ku gëm boppam la ko it ku man li muy def la te it ku respecté li muy def la ñëw na euh, mel na ne Mbaye Sy ñëw na ñëw na mel na ne Fallou Benjamin ñëw na ndax moom fu mu teew rek teewal na Mbaye Sy teewal na Fallou Benjamin amaana empêchement du ñàkk wala sonn gu ñu sonn ci seen tëgg gi doon tëgg samedi moo waral seenu ñàkk teew mais dama ni moom bu ñëwee rek ñëwal na mbay si ñëwal na Gumba Anta ñëwal na Fallou Benjamin ndax papa moom at ñooñu ñoo bokk ndey ak baay. sekk ci la bokk yaakaar naa bu coono de am moom mooy gën a am coono. xañ na lu lu fàllu moom bu ñëwul rek am na lu tax ñëwul dafa jàpp. may empêchement mën a dal ku nekk. délégué tey benn bés bi nga am muy takk soxna muy bés bu màgg ci ku góor ci ko waaw incha allah mais benn bés bu màgg bi nga amagum tey euh, te bu dee jigéen tam benn bés bu màgg boobu la am ba yàlla di ko may bant tey bu ñu demee ba ne euh, wax dëgg neex yàlla député délégué Amar mooy takk soxna yaakaar naa ne ku mel ni Benjamin dinañ ko fa xaar te ñu ngi ko fa doon xaar ndax dafa am lu dox ci seen diggante kame ba tax. déedéet man nee naa dara du takk ci waale di. ak ak ñàkk fayda wala ak yabal lu jóge ci man di dem ci ñoom waaw man lépp lu tax ci wàll laa wax de lu jóge ci man di dem ci moom fallu bu ñëwul am na lu tax ñëwul wax naa la ko mais bu Seex Anta ñëwee xaalim mbay doog a ñëw waaram daan yëpp ñëw nañ waa déggoo ma la waaram daan yëpp ñëw nañ de bu bu pré bu euh, ministre bi nga xam ne mooy wàllum seen waale di Amady Badiane bu ñëwee mel na ne euh, kii ñëw na Fallou Benjamin ñëw mel na ne tamit mel na ne tamit Armand Ndiaye ñëw na. mel na ne Papis Ndiaye ñëw na mel na ne ñëpp ñëw nañ waaw mais ne ñoom bu ñëwee rek ñëpp ñëw nañ xañ na bu ngeen bu bu bu bu ngeen gisantee fàllu ngeen laaj ko parce que man na nekk dafa am empêchement parce que xam nga yàlla yàlla rek a mën a matale lépp kenn mënul matale lépp seenu ñàkk teew nag Faramareen la gisuñu fa Ndeye Ndiaye Banaya gisuñu fa Awa Banaya gisuñu fa Ndiap Zo bëri na ñoo xamante ni mën nañ def constat wane ni ñoom ñu ñëwuñu euh, lan mooy problème bi délégué dafay déranger wala yow dañu dañu la tegul fenn ba tax vraiment bàyyi ñu seen yitte ñoom moom waroon ñëw ndax ay fere cekke lañ ñu bees lañ donc boo nekkee fere cekke nekk ñu bees te it dinaa waxat son excellence président Diame réew mi ñu def benn euh, ñu def benn dialogue pour waxtaanee ñi nga xam ne wala ñu def euh, dina def conseil des ministre moom président waxtaan ak ministres yi ñu am ministres yoo xamante ne ni que dañ leen di ràjje dañ leen di wàcce am député yoo xam ne dañ leen di delloo fanu jóge woon ginnaaw juboo am na te xam naa ne euh, sunu opposant bi dañuy soxla seen employé yooyu ñu xool naka la ñuy def ba delloo leen dinañ ci waxaat dinañ ci waxtaanat dañ koy waxatee euh, dinañ ci waxtaan ak kii euh, noonu Serigne Boub Serigne Boub mooy Sidi Diop Serigne Boub moom mooy Sidi Diop mooy mooy opposant bu kii bi mooy opposant bi gën a neex néew ay voix ci affaire yi donc dinañ waxtaan ak Serigne Boub di siidi Diop mu xool ñan la soxlawaat ñu delloo leen ci ñi nga xam ne ay député nu ministre de communication Omaro sax dinañ xool naka la ñuy def ba ba ba delloo ko ci wala wala ñu toog bàyyi ko. <laughs> <laughs> Omaro moom yéenay xool day dem wala day toog. kaay wax la nag xanaa xamoo ne Omaro am ko ci showbiz moo gën nga ñàkk ko ma wax la lu garaaw ku mu mën a doon nag boo ko laajoon Youssou Ndour sax lii ma la wax la lay wax non non ma la boo ko laajoon Youssou Ndour lii ma wax la lay wax Omaro am ko moo gën nga ñàkk ko ci showbiz daf ko xam daf ko mën daf ko maîtriser te ku mën a yëkkati artisam la comprendre nga baax fi ma moom daf ko mën te daf ko xam te daf ko maîtriser te ku mën a yëkkati artiste la xanaa xamoo ne Omaro li muy def ci waale képp ku koy critiquer baa nga koy xeeb am na fekk nga te noonu waale nga waaw nit koo xam ne fu mu la fekk lu mbooloo bari bari mu wax ba ñëpp kàddum féete ñëpp kaw te lam lay wax lu lay tagg kese la waaye Sëñ Tuubaa lu mu tagg daa tagg yonent bi ba lam yoroon daanaka taggin wi jeex bi hmm? ba dégg ba yonent bi ci ci donte du jeexal mu naan ko li ma yor jeex na waaye wàllu saxaaba yee fi des ah donte du jeexal de mu aboo bëkkirin sa diix soo sin li wal xafaa yam ci aboot mu commencé tagg ñëw abo ah? kon tagg dafa dafa garaaw de kon nit bu la nit ku lay tagg rek kooku war nga koo teg foo tegul kenn nit ku lay tagg ci États-Unis Paris Allemagne Angleterre France fu nekk bu ngeen fa àndee mu lay tagg ba tubaab yi naan kii lan lay wax loolu succès la loolu loolu loolu loolu cër la loolu respect la te it Omaro loolu muy defal waale barke leeru alxuraan képp koo xam ne yaa ngi koy ñaawlu naar fekk nga te buggoo waale waaw moo tax suñu defee loolu Omaro du mën a dem mais dinañ xool ay ñoom nday njaay bànn yaa njàpp awa sax ba bëggee ñu jox leen ko waaw est-ce que duñu wala ñu def essence léegi baa ñuy wax awa euh, suñu opposant yi mu je mu dem ñu ñu kii. ne li nday di def ci seen bi awa def ko ci seen bi ba tax nga bëgg koo buus. déedéet déedéet awaa ngi yëngal de yow xam nga li wax ah, xam nga man na wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ñoom fecc du ko xool mhm. man yàlla daa dogal du ma xool ay lëmbal du ma xool kaw seen man seen bu ma demee soirée waale man naa gis waale mu taxaw yor micro bi di ree ma koy xool di ree sama xool di sedd mu wàcc ma dem ñibbi mhm. mais mosumaa xool li ñuy fecc yooyu parce que dëgg yàlla du ma xool ay lëmbalër yooyu ko waaw mais daal ginnaaw opposant bi nga xam ne ñoom lan amaloon euh, campagne bu metti nangu nañ ñun ñoo gañee te ñun ñooy président bi te nangu nañ ne ñun ñoo dàqawee ci àdduna nangul nañ na ko félicité nañ ñu ñëw nañ ba suñu pale ñu jox ñu félicité ñu tamit ñu am benn meeting di ñu invité ci seen meeting donc kon duñ def lu dut membre yi nga xam ne bàyyee ko woon nañ foofu ñëw ci ñun waaw comme nga ñun tamit waaw ñun tamit am nañ ay yooyu ñun am ci yeneen ay ensemble dinañ fa dem pour waxtaan ak donc comprendre nga kon dinañ xool awa wala ndey njaay bandeyaa ñu bëri ñu bëri ñu bëri ñu bëri gëmum mën a dem gëmum mën a ñu bëri ñu bëri moom du dem eh ñu ñu bëri day daaneel président jibiri biri bi day daaneel président te président ku koy loo dem nag uh-huh. mais nag euh, ñu waxtaan te yàlla tax njàpp dafa mën seen mm. waaw te artiste dafa soxla lu mel ne li njàpp li muy def comme ñoom ëmma xanaa xamoo ne fecckat dañoo am seen public bokk tey bu Wally waree tëgg concert am na ñoo xam ne njàpp moo leen yóbbu am na ñoo xam ne ëmma di moo leen yóbbu am na ñoo xam ne Arma moo leen yóbbu am na ñoo xam ne Ndeye Ndiaye moo leen yóbbu am na ñoo xam ne euh, Awa Banaya moo leen yóbbu ñooñu nag boo leen amee ñuy indi public ba pare di neexal kaw seen waroo leen a waroo leen a bàyyi benn yoon ñuy dem moo tax dinaa conseiller tuuti sunu opposant boobu di Sidi bu amatee ñu mel ne ñooñu na leen exploiter mu téye leen ba ba nga xam ne lu ñu gis beneen kër wala beneen parti di dem di fa déposer seeni CV waaw est-ce baax li ma la wax dafa am solo gars yi ah. ay qualité lañu ah, njàpp bi mu ñëwee ci seenu bi mu ñëwee sunu suñu parti ba léegi parti jàmmi réew mi njàpp ba fu ñëwee ba léegi mais yu exceptionnel rek la fay def mais yu rafet rek la fa njàpp di def day créer te loolu lañ soxla ci artiste. te pourtant li muy noonu ko def ma ngi noonu kan nu ko Sidy defee ci moom njàpp di fecc Sidy di way nu ko defee ci moom. la muy Sidi la muy la muy fecc ak ak njàpp ba mu am moom la jël def ko ci njàpp njàpp ñëw indi ko ci. aji njàpp artiste la boo xam ne fecckat la Sidi waykat la njàpp ah déglu ma fecckat mooy dem di créer ay affaire am di ko indi ci kaw seenu artiste am Amady Badiane li muy def moo koy créer boppam ba am ci entreprise boo xam ne dañuy fecc waa déglu rek. waaw def ci moom fit bi Sidi def ci moom création. Amady moo formé njàpp di. déedéet ndax njàpp dani déglu rek njàpp dani ba may nekk Kaolack de ëmm di ba ma ko daan seetaan daan def lu bëri ci sama pecc kon moo ko formé feetaan yi muy seetaan moo ko formé am déet déedéet euh, bul ma bul ma déglu ma wax la rek. nga nangu ni rek contenu bi bi njàpp am si dee ko def. déglu ma rek maa ngi nuyu euh, sunu opposant boobu di euh, Sidi Serigne Mboup ah Sidi Serigne Mboup di ko siyaare di ko jaajëfal. def na lu geste bu am solo Sidi Serigne Boub geste bi mooy lan euh, am nañ mitin mu ànd ko ki nga xam ne ah moo di kilifaam di maa ngi koy nuyu sax wax dëgg yàlla dinaa ci ñëw tuuti après ñu dem pale seeti ki nga xam ne mooy son excellence président Jàmmi Réew mi ñoo ànd ci benn campagne bu am solo ñu gañe leen ci ay un milliard de vie ah ñu nangu ñëw nañu remise am nañ meeting di ñu ko yëgal kon kooku awma lenn lu ma koy ŋàññ comprendre nga lu dul rafetlu ko léegi ñoo ngi nuyu tamit euh, nuñ koy waxatee Anta Babacar Ngom mooy euh, Miya Gise mooy Anta Babacar Ngom Anta Miya Gise comprendre nga moom gis nañ ma ngi def ay kii yu am solo opposants yi dañoo dañ ñu ngi liggéey daal ñu ngi liggéey. opposant bii nga xam ne dafa ñëw ci seen kër keroog. gëmoo gëmeewoo leen ko ndax Sidi bu mu ñëwee Wally Seck ci boppam gëmeewul tànk ba ti Sidi teg ci kër. waaw euh, dama ni gi rek ñëw gi Sidi Serigne Boub ñëw ci kër gi. aji ñëw gi Sidi Serigne Boub déglu rek ñëw gi Sidi Serigne Boub ñëw ci kër gi. waa déglu rek ñëw gi sii di sëriñ boobu ñëw ci kër gi yokkute la ci moom tawféex la ci moom tawféex la ci képp koo xamante ne nekk yaa ngi ci opposant suba teel dañoo am événement bu exceptionnel bu rëy nag ndax euh, Bercy soo de Saloum nu mu tudd affaire bi Genève Zénith du ay caaxaan te ki nga xam ne moo di Makhtar Diop Soubatel xam nañ ne Zénith duy caaxaan pour nga tëgg ko bàyyi fi artiste bi raw ci Sénégal demoo fa tàgg ko jox ko invitation am mot zéro yam waa xaaral rek mot zéro yam te képp koo xam ne Sénégal ngi yi nga nekk di tëgg Bercy di tëgg foofu Genève te ñoo ànd ci at son excellence président jàmmi réew mi daanaka doo am sax la nga bëgg si bu ngeen seetloo aji maas xam na li may wax yow xam nga li may wax gaynde xam na li may wax mooy lan avant que ñoom ñuy ñëw ci Sidi njëkkee nañ ci ay bërëb di nekkul actualité si. Pape Diouf actualité non déglu ma bu ma jaxasee ay Pape Diouf yooyu dama lay jox exemple xoolal moom da koy wax parti mu jël parti Idrissa Seck bi bu ma koo indil waa kër Idrissa Seck ñëwaguma ci ñoom defal naa ko rek Euh, Pape Diouf mooy Idrissa Seck Idi Pape Diouf comprendre nga parti Pape Idrissa Seck bi nu mu tudd nu mu tudd waaw réew mi Pape Diouf mooy réew mi comprendre nga <laughs> moom ba mu dalee posé candidat ba léegi wax dëgg yàlla ah <laughs> comprendre kon bul ma jëlal ay parti Idrissa Seck di ko dugal ci ngir mi dama ni waa taxawal rek. li muy indi ci mbooloo Wally Seck mënu koo indi ci mbooloo. Idi Pape Diouf parti réew mi. dama ni na mu mel ca bitim réew waali ko ci bitim réew bitim réew xaw nañu xam nañu Pape wax dëgg neex yàlla gis nañu lépp loo xam ne tëgg na ko fa dafay fees dell ma ni la Pape Diouf mën indi est-ce que Waly Seck mën na ko dama ni la lii nga xam ne moo di parti suba teel ba ñu demee ci yeneen bërëb ya nekkul actualité mais bi ñu ñëwee ci parti jàmmi réew mi journée boobu yëpp ngoon googu yëpp actualité la nekk TikTok beet Instagram beet Snap beet YouTube beet maas xam ne li may wax sëñ bi waa taxaw xam nga xam lu waral loolu xam lu waral loolu déglu ma rek xam nga lu waral loolu parce que ki nga xam ne moo di son excellence jàmmi réew mi neexul ba neexul moo lii di internet ak lii di public bi lii di euh, population bi dañ ko bëgg te yàlla rek tax kon moom lu mu teg loxoom ñëpp a jàpp lu mu tegul loxoom nag kenn ñëpp koy boycotté dem nañ fa rafetlu nañ dem ngi ñëw nañ wax nañ kàddu yi rafet son excellence yëkkati na kàddu yu rafet jëmale ko ci ñoom ne leen lan la affaire bi liggéey bi du fii waa xaaral rek bi du fii fële la demal nga dóor ko ñëwaat demal nga toj ko ñëwaat ah? boo paree ñu ànd Bercy. xam na ni Sidi daf koy toj. Oh, aji déggoo ma de yaa ngi catu Sidi te Sidi ñëwagul bu ko catu bul catu uh, Sidi Sidi Serigne Boub comprendre nga parti bi nu mu tudd déedéet Serigne Boub Serigne Boub nu mu ji xaw ma xoolal hmm? ñoo ngi rafetlu dem gi di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm te man invité ma. ah waaw Sidi invité mën na ci baas bi déggoo ko. suñu xew ba nee na la invité la la Zénith. invité na ma Zénith te damay dem. Makhtar Diop suba teel invité na ma te damay dem lu tax ñu invité ma lu tax ñu invité ma parce que jëmmi Waly Seck moo tax ñu invité ma. buñ ta buñ def buñ woon seen seen mbir te dugalu demuñu ci kër Waly waxtaan moom man duma ci communiqué te it Makhtar du am duma sax wax waxu ay nangama nangama nangam kon fa ma toog laay toog rek. mais dem nañ kër waali waxtaan lépp nekk ci jàmm man délégué ñëpp laay jàmmal tay nag yokk ba yëg ko nii nga xam ne moo di parti ñoom sëñ boobu bi yokk ba ko donc comprendre nga ma ngi noonu donc bu fekkee naka ñoom am nañ initiative boobu ñoo ñëpp koy rafetlu aji te it wax dëgg yàlla kaay nag ma wax la délégué lu mu lay jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp na nga def waalee tax jàpp ga ko jàpp tax waaye nag ku jàppul waale ku bëgg a teg waali fenn fi wala nga bëgg a ñàkkal waali fayda donte munoo ko di ko jéem laa la wax de donte munoo ko te di ko jéem man délégué ma ñàkkal la fayda foofu laa ah, suñu temps mi ngi dem dama bëgg ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy ñëw Sidi Diop ci sa xew par rapport ak attaque yi nga doon def Sidi Diop attaque yi nga doon def Matar ak Suba Teel waaw dinaa si ñëw may ma rek may ma ma ñëw alors ñu gis ki nga xamante ni moom mooy Sidi Diop mu ñëw ci sa xew question bi sénégalais nag di laaj mooy ndax Sidi dafa dafa ñëwal boppam te invité woo ko wala yow yaa yëkkati sa téléphone woo Sidi Diop mu ñëw. Sidi Diop ba mu génnee kër Waly ma xam ne def na geste noble def na lu rafet dama ko remercier ko ci dem gam fa dem ah <laughs> man du ma nar fekk de opposant ñu nekk ñoom ci campagne bu metti ñu gañe leen ñu nangu ne gañe nañ leen ñu ñëw sunu kër. palais di remercier sunu sunu président en même temps di ko yëgal seen meeting a ah, man may honorable député di président tous les députés damaa war a yëkkati sama téléphone remercier ko noonu la demee ma remercier ko ba déglu rek ma remercier ko ne ko sax man mii dimanche damay jël soxna mu ni ma damay teew la demee waa déglu rek non non pas invitation dafa def lu yëfi noble dem na kër président di eh, jàmmi réew mi ñëpp rafetlu ko man su fekkee ne maay honorable député di président tous les députés dama war a yëkkati sama téléphone woo ko en tant que président tous les députés rafetlu dem gam fa dem waxaale ko ne ko damay jël soxna bis sàngam waa taxaw rek am na Sidi bànneex la fi ñëwee bànneex la fi demee lépp lu fi dégg te neexu ko ah, amut Ah, déglu rek dañ ko sewal ndax ki yoroon micro central ba muy xaali mbay ba Sidi dugg see tudd li ñu gis ñun la ñuy wax waaw xaali tuddul Sidi Diop te waali ba mu ñëwee daf ko accueil tudd ko bàkk ko te loolu la waroon def Sidi Diop déglu rek xaali bu defee loolu communication nit ku nekk dangay juum comprendre nga nit ku nekk da ngay juum loolu du débat tey débat amu fa xaali mbay dafa nuyu Sidi Diop ne ko nag lii moo taxoon nanga ma nanga waaye léegi man man man waaw dafa jum nit ku nekk da ngay jum ci communication. waaw déglu ma da nga ni Xaali Mbaye dafa communiqué ne lan Sidi. avant communication bi mu duggee daf koo bàkk dalal ko di ba muy ñëw bàkk ko. dalal ko te itam waxul turam man maa ngi woon ci xel. non non bul wax loolu président jàmmi réew mi ak Sidi ñoo duggandoo. ta déglu rek non si. vidéo yaa ngi nii waa de vidéo yaa ngi nii ñoo jille waa ñoo jille waa mais président fu muy ñëw doo tudd keneen ku dul président. opposant yi non non non doo déedéet waaw bokkul waaw déedéet yow yaa ngi dégg nga ñun ba tey suñu parti la loolu boo waxee loolu ñun ñooy parti Pastef en même temps ñun ñooy Pastef Pastef jàmmi réew mi ñun ñooy Pastef jàmmi réew mi son excellence président jàmmi réew mi déglu rek déedéet non bul wax loolu aji di indi jaaxase non non no non non réeroo la wax communication bu amul bu jum la te jum ku nekk lay dal. communication bi mooy dani ko boo boo jubóowutoon ak Wally Seck du ma la nuyu te xaaruñu ko woon ci xaar. ah dafa jum rek communication. war wax loolu si ak communication bu jum. tey ku bàyyi lépp lu amoon wax dëgg neex yàlla seddal ñëwal la ci sa xew da nga koo war a accueil dalal ko waroo wax kàddu yu ñaaw. jigéen nga da ngay am ak njaboot. bul indi jaxase. déedéet man sama sama vie privée bokk ak sama liggéey man li am loolu laa la. wax de. si liggéey bi tey jii am na ñoo xam ne ci commentaire dinañ aji mi seetaane na te loolu waroo koo déglu du waroo ko déglu waroo ko déglu beneen bi mooy xaali président fu muy ñëw yemut ak opposant bu mu fa dajal si président waaw moom laa président nag buy ñëw président rek ngay dégg opposant doo leen mën a gis sax loolu rek la te bi bi déglu ma rek bi bi bi bi waaw déglu ma bi sii di sëriñ bi mu ñëwee recevoir nañ ko dalal ko teg ko mu ànd ak ko yar toog yëkkati kàddu yu am solo son excellence président Dia déglu rek son excellence président Diame réew mi jox ko cër googu rek moo solo. wax dëgg neex yàlla Thiat Seck ba mu ñëwee nuyuwu ko woy ba mu neex ko ne gisuma la woon xam nga tamit vraiment coup d'état ngeen doon créé. doo eh, kaay ma wax la nag wax na dëgg de wax na dëgg de wax na dëgg de Thiat gisu ko woon de waa xaar rek Sidi fi mu toogoon nag kaay ma wax la maas déedéet romb ko de. fakkulil xaq déglu ma rek ba mu agsee man la jàkkaarloo maa ngi koy seen ba muy agsi boobu Sidi agsee. maas Dakar live nit ñi koy suivre bëgguñu jikkoy naan fekk te am na loo xam ne bu amee rek aji dafa bëgg a jaxasee artistes yi daal ñoom showbiz bi jàmm ji mu am nii lañ bëgg a xañ déglu rek déglu ma rek jàmm ji am ci soobis bi ngeen bëgg a yàq yéen moo lay won ne man fu jàmm di am moom bëggu ko yéen fu fu fu ba di am rek euh, ki nga xam ne moo di nuñ koy waxatee waaw di kii jóob si mooy caat sekk Diop Sy xam nga Diop si si euh, Thiat Diop si gisul gisul Sidi xam nga lu tax gisu ko parce que Pape euh, Thiat euh, Sidi fi mu toogee Thiat dafa ñëw rek jàkkaaroo en face waale xoolul côté bi xoolul côté bi jox ma affaire bi bala ngaa dem xoolul côté bi comprendre nga moo tax mu ne ko gisuma la woon xaw xaalis ba pare la ko xaalis bi nuyu ko moo tax mu gis ko mais gisu ko woon barke Serigne Saliou mi ma yaakaar gisu ko woon billaahi laajal maas mi xam na ne gisu ko woon bul indi foofu polémique loolu lu jàll la maa ngi remercier Thiat Seck def na lu am solo def na geste noble ñëw na ci bisu honorable député délégué Amar bi comprendre nga mais Thiat waroon na maa ndawtal Thiat waroon na maa ndawtal te ndawtalu ma donc di maa ngi bind benn liste nag képp ku ma ndawtalut déglu ma rek te Thiat maa ndawtal moom xanaa ba ma ko ndawtalee sax mu delloo ma ko waaw ndawtal ci bi jour bi bi mu ko ndawtal li ah ba waa opposant mu war moo ndawtal ndawtalu ma léegi nag maa ngi bind benn liste képp koo xam ne rek déglu nga vidéo bi nga ndawtaloo woon délégué Amar na nga dégg sa tur. Sidi ma man kay parti yi man jaaxal nañ ma rek suñu parti yi. suñu parti yi. Sidi tamit ndawtaloo ma. caat ndawtalut Sidi ndawtalut. Waly Seck. xam nga dinaa bind liste boo xam ne. waaye Waly ba muy ndawtal day tey mm. moom Waly ndawtal ma 15 millions nga naan ma ndax ndawtal. dégg rek moo def teraanga mais Wally bokk ci. man loolu ngi koy remercier di soxna su baax di soxna soo xam ne li ma wax sama jabar rek nee naa ko na mel ne soxna ay dara maa ngi koy nuyu sax moom soxna May moom laa waroon a waaw madame Amar. ginnaaw ba ma nuyoo sama yaay ba sant ko gërëm ko xam man di gërëm sama yaay di sant sama yaay du ma koy def ci internet parce que loolu maat yàlla la hmm? mhm. loolu maat yàlla la waaw loolu maat yàlla la sama yaay cant gi ma koy cantal gërëm gi du ma ko bëggee di def ci internet parce que loolu man yàlla la heure bu ma jullee ba pare cant gi may defal sama yaay man rek maa ko xam donc sant ko ci internet loolu loolu du njuréel gi waaw tey sama image yu yaay nekkul loo xam ne day dem ci internet parce que sàkkuwuma ko ma ngi noonu ma ngi noonu comprendre nga euh, soxna May wax dëgg yàlla di soxna su baax ma Amar ah di jigéen ju baax ndax délégué moom ku mu takk rek am na qualité yu mu gis ci yow ba takk la lenn laa koy conseillé na gumba tëxluur te roy ci soxna ay dara ndax ñun ay nitu média lañ déglu ma rek ay nitu média lañ te nitu média yi sàkkuwuñ ko yàllaa ko def ci suñu jëmm ji tey ji kii bëgg naa nekk nitu média mais yàlla defu ko ci moom man yàllaa ko def ci sama jëmm ji am na ñu am xaalis bëgg a mel ne délégué Amar te ñoom ëpp xaalis dama ne am na ñu am xaalis te bëgg a mel ne délégué Amar mais yàlla ja jaarale ko ci ñoom moo tax boo amee sox mal la voilà kon boo amee lu mel nii lu nekk doo dégg ci internet bi na ko muñ te xam ne Soxna Aïdara lu ne la dégg ci àddunaam amul lu nu waxut borom këram ci àddunaam mus ngeen ko dégg mu wax mus ngeen ko dégg mu ñaawlu ko mus ngeen ko dafa ànd doyloo sunu borom dafa ànd ragal yàlla dafa ànd gëm borom këram bi te xam ne suñu borom da koy may kon maa ngi koy bu mu teg foofu tànkam sob nga nag ndax magum jëmmu tëdd bu guddi li sixaar gis li muy gis nga ni ko foo ko xamee aji safar bi fu ngeen xamante aji ki lay labat foo ko xamee aji maas laaj nga ko fu mu xamee aadama ah aji aji jomaay laaj nga ko fu mu xamee premier jomaay laaj nga ko de première dame fu mu ko xamee sa ñaareel bi nag. benn jabar la mas am kenn la ñu ko xamee muy aadama dem avancé. ah man ngay waxal de. d'accord mais comme ni comme ni ñu ko waxee rek euh, délégué euh, fan nga fan nga xamante ak ak ak madame Amar vraiment parce que nag wax dëgg neex yàlla euh, délégué yow ci moment bi nga xamante ak moom mooy. spécial cant moom Gaynde Fatma takku suufu maas bi da ko waxut. ah yéen bu keneen takkee su ngeen ngeen wax ci. xam nga man xamal waaw loolu viem la maa maas ñu ko loolu wax dëgg neex yàlla chaque jour ñooy ànd ak moom matin midi maa ñaani woon di xam nga takk suuf sa xarit nga yebal maa ñaani woon. te aadama ñu kër ga xam nañu ki mu ki mu nekkal kan am na lu ñu war wax donc comprendre nga wax dëgg yàlla maa ngi rafetlu ñoom Sidi Diop teewaay bi ndax parti suba teel ñëpp ñëw wax dëgg yàlla di nuyu patron Matar Diop suba teel Matar daf ma déggante at moom te déggante bi mu ngi jóge ci kun naan euh, waay waay waay waay comprendre nga. Hmm. wala moo dum fàttali ma tur bi dama fàttali tur bi comprendre nga ñu déggante muy muy muy kàddu yu am solo yoo xam ne Matar yëkkati na ko wax ma ko man tamit ma yëkkati kàddu yu am solo wax ko maa ngi rafetlu ne dégg naa da nga jël soxna ma ne ko waaw. mu ne ñoo ngi koy rafetlu yow sunu frère nga te di nga xam ne sunu frère nga ma ne ko Matar mu ne ma ne ko maa ngi rafetlu yii nga kàddu nga yëkkati ko ba mu ma man sax sama soxna ma ngi États-Unis def le tout sa soxnaa sama soxna ñu ma ne ko loolu lu rafet la euh, tey bi ma waxee loolu ma delloo ko ma ne ko Matar maa ngi lay sant la gërëm waaye man délégué na ngeen xam ne awmaat kenn problème. ki ma amal problème mooy ki nga xam ne dangaa génn di wax lu ñaaw ci Wally donte mënoo ko wax lu ñaaw da koy jéem kooku laa amal problème ci internet bi de mais que amal problème ca suuf sama nga ñi nekku ci sama yoon nekku ci waaye bu génnee public ci internet bi combat la man nag yàlla daf maa natoo mosumaa toog ci jotaay bi ñuy waxee Wally lu ñàkk fayda xaw ma na nag lu tax mosutu am waaye nag ñun waalee ñu ñor na ko jàppale te na ko jàpp comme nga baa fi ko jàppale te na ko jàpp mu ni waali frère la nitam la loolu la wax de waali frère te nitam la te ku fonk waali te ku jàpp waali la waaw ne ma nag kër goo gis day am ñuy nangu am ñuy bañ dëgg la kër goo gis day am ñuy nangu am ñuy bañ te kër waali dafa am loolu dafa am ñuy nangu am ñuy bañ waaw kër délégué Amar am na ñuy nangu am na ñuy bañ kër sëñ kër ma jox la exemple kër sëriñ si sax am na ñuy nangu am ñuy bañ loolu fépp la ma ne ko nag nanga xam ne yéen a bokk lii di musique bi ndax sii di Diop mii nga yóbbu fee xam nga ne du artiste boo xam ne tey niveau am àggagul pour ay Genève yu mel noonu mais lu tax nga yóbbu ko fa pour bëgg koo jàppale am na wala amul. bu ko jàppalee tax mu yóbbu ko fa di am déet tey maxtaar Diop suba tey ban naa jàpp naa ne tey jii bu ko neexoon tëgg waale yóbbu ko foofu waaw déglu rek déglu ma bu neexoon tëgg Pape Diouf yóbbu ko foofu pourtant mooy ménageur Pape Diouf daa mel ne ah bu ko neexoon tëgg euh, ñu ma waxate ay ay ay artistes yu mag yóbbu leen foofu mais bu yóbboo si yóbbu lan moo tax mu yóbbu ko pour jàppale ko mais nag sii dina am ful laat fayda te dépassé yu bëri na dépassé defante na dépasé xuloo nu dépassé kii nu ñu koy waxatee tontante na dépassé yenn yi te xam ne dafa mature estant bi parce que bu demee ba jàkkaaru dëkk tubaab bi dem ba dëkk tubaab yi jàkkaaru askan wi di leen wayal bu ñibbisee fii tey jii ñu man sax dinaa bokk man damay dem ginnaaw damay dem sax xam naa dama bokk ci ñu koy teeroon ñooñu mais war nañ koo war a mën a teeru ci aéroport ba teeru bu rafet bu ko tojee nag laa wax de bu ko tojul nag kenn du ko teeru. loo leen wax rek boo ko tëjut njaga njaay koy jësi dama leen wax rek bu ko tëjut meeting bi moom bu ko tojut njaga njaay koy jësi bu ma la laaj sànq mais dafa mel ni question bi arrangé nii duy caaxaan fi mu jëm nii de su àggee dañ naan doomu Sénégal moo foo war a tëgg comprendre nga doomu Sénégal moo fa a tëgg donc kon na na ci na ci concentré wu te bàyyi xel xam ne lu am solo la jëm waa léegi bi loolu amee Matar ñu déggante mu woo ma ma woowaat ko ñu jokkoo mu ni def maa bëgg a gis nañu daje ma ne ko amul problème fan la ñuy daje mu mu ni ma boo déparé rek woo ma fekk maa ngi waroon na dem ci affaire sëñ Bouzé Ketchup bi ma ne ko damay dem ci mbirum Bouzé bi après yooyu noonu mu ni ma waa kon nañ gisee ba pare ma ne ko maa ngi nii di kii ci côté foire bi mu ne ma duggal biir foire ma dugg biir foire fekk ko fa ma dugg ci biir euh, seen kii bi nu mu tudd label suba teel bi ci seen studio bi mais nag investir na foofu xaw ma moo ko defar investir na fa gis nga bu Wally tegoon tànkam foofu sax dina xam ni kii ku bëgg culture réew mi la ku bëgg musique Sénégal la moom laa lay wax dama ni bu Wally dugg maa ngi doon wax sax ministre bu bees bi pour ñu changer directeur foir bi temps yi guerre bi ne leen Matar parce que du fay impôt yooyu waaye ma ngi fay impôt comprendre nga euh, wax dëgg yàlla nit lu mu soxor soxor soxor soxor boo duggee ci fi fi Matar Diop defar di nga xam ne bëgg na musique Sénégal mënoo nekk nag ci showbiz bi ñaawlu la mu def foofu kon yow bëggoo musique bi investir na fa liggéey na fa tey rafet na donc euh, ma dem fa toog waxtu mu visite ne ma defal ñaan te nga visité fépp yow sunu sëriñ nga loolu rek cër la sëñ bi ma dugg fa ñaan fa dajefaan moom dugg fa ñaan fa ne ko yàlla yàlla def taw tawféex te it fii gëm naa ne président jàmm réew mi dina fi teg tànkam ñëw siyaar ko defal la fiy ñaan ndax investir nga fi kon ñam investir ba mu fa def ñam fay liggéeyloo ñu yëkkati liggéeyam boobu te xam ne bëgg leen a jàppale doo nga tax mu def ko boo ko neexoon jàpp naa ne xaalisam da ko yor ah xam naa sax amagul yenn xaalis yeer yooyu daf may àbbu àbbu na ma keroog xaalis xam naa moom daal vraiment comprendre léegi nañ ko jàppale te xam ne lii mu def defu ko pour boppam da ko def pour musique gu Sénégal da ko def pour artistes yi da ko def pour ndaw ñi nga xam ne ñu ngi liggéey comme leen ni mu defaree di jàppale artistes yu ndaw yi artiste bu ndaw mu ñëw mu yëgal ci kaw seenam artistes yi nañuy def loolu di jàppalante seen biir. mu wax ma yëkkati nag koppar jox ma ne maa ko jox ci bis bi muy ndawtal téeméeri junni la ma jox téeméeri junni yooyu ba ma ko joxee ci tàng-tàng yi borom ki nga xam ne moo doon baasa sama xew yi laa woo ci tàng-tàng gi jox ko kon loolu lu sa loolu rëy la di te teraanga la ma woo excellence président jàmmi réew mi xamal ko ko muy dallu ma woo première dame di soxna ay dara xamal ko ko mu rafetlu ko comprendre nga ma gis président xamal ko ko mu ni première daam wax na ko lépp kon xam nga ne ñi ay gor lañ moo tax nag euh, màggati fara maa leen yeet yàqkat yi maa leen maa moo tax ma ma jiitu leen parce que yàkkamti lu dara am ñu dem feneen naan ma déet déet man mënuñu maa yàqal ci président mm-hmm. ndax man si ma laa benn yoon laa tooy te waali laa gëm te waali laay jàppale te Matar loolu laa ko wax mu dégg ko ma ne ko man Omar kenn problème ki ma amal problème mooy ki jéem a xalab tey téeméeri junni yii nga ma jox nii bu ma xëyoon suba attaqué waali sa téeméeri junni bi dama koy lekk wala ma delloo la ko ba dal sa kaw ku mu mën a doon nag mu rafetlu ko boo tax ba ba añ añ ya man leen ci bël leen bañ ci bee ña bool yi jëm kër président ba pare at bool bi jëm kër Cheikh Amar man leen ci bël leen Makhtar Diop suba teel séddale bi ni muy demee. maa ñëw na leen président jàmmi mi bala lu ñëw ci bël kenn balaa waa kër gi añ na boolu président yi añ ci bu ba pare son excellence jàmmi mi première daam soxna ay dara ñu ci bu ko mën leen tibbal leen Cheikh Amar ñu ci bugg ko mën leen tibbal leen Makhtar Diop suba teel moo du yóbbu ko parce que yëkkati na teraangaam def ko ci man kon dama koy delloo teraanga ci bis bi. ca ngoon nga jot mu yebal euh, euh, opposant am yëpp ña nekk ci parti bi ñëpp mu yebal leen ñu ñëw kon donc bu ma ko santul wala gërëmuma ko damay nekk naa fekk te yàlla du ma sax yàlla sax daf may jéppi ndax mbiru àdduna lu baax danga koy fësal te it ku ma ci mere sama ngaññaa sagam son excellence jàmmi réew mi moo ko rafetlu te merewu ma ci mu yow naar feq yi réew mi ñëpp naar feq presque di xaaj bi. nekk biir faramaare ndam daal dañ ci mer. ma ne déggoo ma ne ku ci mer. am na ñoo xam ne sax jubóo bi waali dem kër siidi nii neexu leen loolu loolu jikkoy naar fekk la siidi dem gim dem kër waali wàññiwul dara waali te xamul lu ma naqari sama ad lu ma naqari ni aji ci musique waali billaahi wallaahi wa taalaahi waali fi mu mën a woyee dëgg dëgg dëgg la ay waa juróom dégg déglu waayam waalee ngi doo ko mën a way xam papa Thione wax na ko yaa ngi man man ngaa way la ko waxoon de man ngaa way rek la ko waxoon waaye ma ngi door a ma nga mën a way barke leeru alxuraan yaa ngi déglu li muy way fan yi maas ma ngi dem barke sëriñ Bamba Mbàkke walla dafa way benn way boo xam ne fan yee paase muy bi muy way ki Aline Seck ne oh way wi mu way Aline Seck billaahi wallaahi wa taala ren dong ci manqué mu yaayam ji dëdduna àdduna at baayam bi at ñu xamee musique te dégluwuñ seen doom ñi mën a wayam gi ma gi doog a am te aji ci kanam ngeen xam waali moo tax man la ci kanam ngeen di xam waali moo tax Sidi Diop dem kam fa dem lu muy wàññi waali lu dul lan sénégalais yi dañuy gën a jox cër waali te xam ne kii niñ koy waxal ci lu ñaaw lépp nekkul ci moom gor dëgg mooy jëmm ji bu ko neexoon ñu ne ko Sidi Diop mu ni waay waay aw ma jotam lu mu koy wàññi am deet sawaay kon nañu ko rafetlu bu jeunesse bi jàllee bu fekkee ne sii Diop réussir na yàlla na réussir nag ci barkeb sëñ Saliou waaye bu essayé nag ne naa ko naa ko ñam loo xamante ne nii Sidi Diop góorgóorlu ba ba réussir noon noonu yaa ngi taxaw de te noonu yi waroo leen a may ñu reetaan mukk na nga rus jëmmi Matar Jalla fa yóbbu na rus jëmmi son excellence président jàmmi réew mi ci kàddu yi mu yëkkati ngeen liggéey seen liggéey bi bañ a suuf ngeen avancé su gañee Sénégal a gañee bu échoué Sénégal a échoué délégué wax dëgg neex yàlla dafa am koo xam ne waaw may ma ma ñëw ci question bu ko defee nga remercier ma ne dafa am question boo xamante ni yow da ngaa am ñoo xam ne say balaa boobu damay remercier waa demal vas-y dafa am ñoo xam ne vraiment dañu bëgg délégué Amar te itam ba ñu déggee ni takk nga soxna dañ cee kontaan lool mais réponse bi ma bëgg rek nga jox leen ci mooy dafa am ñu ne euh, ci barke Waly Ballago Seck nga xamanteeg soxna si wax dëgg neex yàlla ci ci ci barke Waly Ballago Seck nga ko nga ko takkee ci barke Waly Ballago Seck daal moo moo leen boole yéen ñaar ban réponse ngay di euh, barkeb waali ñi ci am doom ak ñi ci sëy bëri na barkeb waali ñi ci am doom ak ñi ci sëy <laughs> bëri na parce que yàlla moo ni waale dama koy wàcc jamono ci barkeem mu am lu mu defar ci ay diggante yu bari waaw jëmu jee barkeel est-ce que comprendre bu baax fi na xanaa xamoon ne ñu bëri ñu ngi ñuy nekkat waale xaaj bi seen say yi ci barke waale la délégué euh, Toumani euh, Paulis comprendre nga ñaareelu ñaareelu mbay si njaay bi ah at euh, at njoogu ah gaa yëpp daal ci barkeb Waly lañ amee seeni soxna si Anta Ndiaye ñaareelam bi tamit barkeb Waly déggoo li ma la wax ci am doom ci barkeb Waly la voilà ah ma ngi noonu te Sidi Diop ma ngi takk soxna fa yii ci barkeb Waly Sidi Diop nee na day takk soxna ci barkeb Waly waaw maa ngi gërëm sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mii lu fi lu waaye naan ci bis bi te xolam sedd rek ci jëmmam la jóge moo ni ma bul jënd boisson bul jënd ndox astafurlaa ndox nag jëndoo ko moom bul jënd boisson waaye boisson bu fi nit naan moom moo ko jënd ndox mu fi nit naan Sidi Mokhtar Amar sama baay boobu moo ko jënd donc ñu muy gestes yu rafet bu leen neexoon duñ ko def ndax ba ma demee di ko jënd def ni ma bul jënd ba ma demee di jënd ndox Sidi def ni ma bul jënd euh, kii nag ak Aquaterra nag moom dootuma naan seen ndox. fii laa leen woo commandé ay ndox ba léegi gisuma seen ndox woowuñu ma te seen ndox moom sax baaxut comprendre nga eh, dinañ ci wax comprendre parce que Cheikh Yatta Saay waruma ko woo wax ko sama xew bëgg ay ndox commandé ay ndox woowuma indi lu may ndox rafetut maa ngi gërëm Sidi Muxtaar Amar ndox mi fi nit naan moo ko fi indi Doro gisuma ko comprendre nga. sëñ bi ak ak xippil xool eh, Doro Gueye. sëñ Jiili Amar sama mag sama frère moo demoon euh, euh, fële ñaani di sama mag ñu bokk nday at baay kenn kooku rek laa bokkal nday baay moo ma tuddee sama turandoo bi Jili Amar sama mag maa ngi koy sant di ko gërëm sant sama mag joo bokkal nday baay ci internet man baaxoowuma ko waaye li nekk sama xol te jëm ci ñoom yàlla moom rek ko xam te moom laa koy seedeel mënu ma waruma koo seedeel Sénégalais ndax seen yoon nekku ci am naa am naa ay mbokk Seydina Aline dafa dafa maa woo mooy Seydina Aline borom gis-gis di ab sëriñ di ab maara di borom gis-gis di xaritu sëñ Cheikh Mbacke genn Fatma daf maa woo ma ne ko sëñ bi maa ngi lay siyaar mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ñëw fi yëkkati téeméeri junni jox ma borom gis-gis xam naa dinaa ko boole ay kilifa mu ñaanal leen moo ma jox càngar sax ba tax ma am bayra ci bis bi waaw coow li xaw a bëreet yooyu waaw moom moo ma sang de moo ma jox ma sangu xam nga njaxas bi nag benn fan su waali moo ma ko jox barke bi waali yaatu na oto jàllee sax am na ab 4 x boo xam ne dañ koo gaare ci bunt bi daa mel ni ci barkeb waali waaw comprendre nga euh, barkeb waali boobu njaxas bi ma sol déggoo ma la wax njaxas bi euh, njaxas bi ci lañ ma ko jox benn fan su waali moo ko ñëw jox ma ko gratuite ñaar la benn waali benn man euh, kan ci waaw comprendre nga sama waa jële oto lay àbb sama bras droit <laughs> comprendre nga donc ñoo ngi remercier ñëpp waaye tamit di remercier site internet yi tout les journalistes site internet yi yéen samay nit ngeen te wane ngeen ko moo tax bi ñu leen téyee man leen benn site internet ñu ko fi téye parce que bu ma meleen nii ba tax nit ñi wuyu si ma dañ cee lu am solo ñoo may timale seen i caméra ñoo may timale seen i micro ba tax nit ñi xam ma ba wuyu si ma di ci jiital nag ki nga xam ne moo di Mass Dakar live vraiment ñu bëri dañoo jàpp ne sax Dakar live dama kaa moom. fekk ni moom ma ko musuma faa def sama dërëm bëgg ak cofeel gu nu àndee man ak moom la di ay xarit bi may nelaw tey ma ko mu fa ma melut ne kuy dajji buntu néeg bi keneen ku ko fi defoon keneen ku fi duggoon di ko def dootoo ko def parce que mayu ma ko kenn moom nag bu amee loolu sama jëmm ji la seq la di jël nuyoo bi nag bi nga xam ne maa ngi koy teg ci presse bi di ko jox moom mu santal ma presse bi di leen gërëm te it Sénégal fii heure bu leen nit waxee lu ñaaw mel na man rek ngeen di gis maa leen di défendre te wan ngeen ma ne keroog seen nit la maa ngi leen di sant di leen gërëm. keroog dañoo ñëw xàppi fu ñu neex dugg fu ñu neex toog te kenn kenn yamale wuñu comme yeneen xew ma ngi noonu kon jeex na. di nuyu waa Seneweb di nuyu waa Dakar Buzz di nuyu waa Dakar euh, waa seen Buzz di nuyu Grand Médoune ah vraiment def na geste ñëw toog ci base bi waxtaan Grand Médoune ah Improt di nuyu Gallo ah di nuyu euh, Kalidou. ah di nuyu euh, toutes les journalistes di nuy idaal yi ah, noonu de moom sax sama employé la maa maa ngi koy nuyu di ko gërëm comprendre nga. Mm, xewam la parce que moom sama waay la sama lépp di nuyu di nuyu Modou ah di nuyu Mara di nuyu Petit sama rakk xam nga ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bu ma limee damay jum mais maa ngi leen di jaajëfal di gërëm Cheikh Amar di sant Cheikh Amar di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te mu wér. ba yéene ji mu am ci yoonu seexul xaddim ji suñ borom roofaat ko kàttan ba mu jug yeggale ko di wax état bi fi ne nañu gestu Cheikh Amar ci alal yi nga xam ne état bi fi jógee amel nañ ko ko alal ji nga xam ne état bi fi jógee yor nañ ko war ko koo jox ñu jox ko te ñu yëkkati wàllum tracteur teg ko ci loxo mu ànd ñoom liggéey loolu mooy wax ji sëriñ si nekk Touba te Cheikh Amar seqat ñoom teraanga te ñu seqat état bi fi nekk jàmm nañu waxtaan ak état bi ñu doole laa Cheikh Amar mu jóg te it ben benn sëriñ boo xam ne yaa ngi Touba Cheikh Amar yëkkatiwul teraanga def ko ci sa jëmm ji te sëñ tax nanu ko gestu nanu ko gestu sëriñ si tey ji Cheikh Amar bu tëddee mel nii tawat état bi fi nekkoon di ko xeex di ko xeex sëriñ si dañ cee gée lu bëri ndax bu leen neexoon du am nañu waxtaan dëgg te yàlla tax li Cheikh Amar def ci seen jëmmi maam li Cheikh Amar def ci seen dëkku maam defu ko fenn kon tey bu seex Amar ñàkkee sam état bañ ko fay wala nangam billaahi waa Touba ñoo waroon nag génn di sëriñ si wax yëngu yëngu waxal seen bopp man nag man lu ma neex laa wax kenn moom ma yàllaa moom waaye Sëriñ Tuubaa laa gëm waaye ni Cheikh Amar mel ci yoonu Sëñ Touba du ngeen gaaw am ku mel noonu ah Birame Souleye mooy ministre de culture agriculture ministre des mines phosphate Matam bi bi nga xam ne Omar Sarr bu euh, naar feq moom moo ko jëloon bu ko jox kari du wagee mi nga xam tekkiwul daara Birame Souleye Diouf mii na jël phos Diop na jël phosphate bi delloo ko Cheikh Amar nu mu gën a gaawee Birame Souleye maas li dagg ko à part Birame Souleye na émission bi gudd ndax après ngeen def deuxième partie Birame Souleye phosphate Matam Cheikh Amar Abdoulaye Wade da ko joxoon signal ko papier bu leer ñi yaakaar naa chaque vingt cinq ans la ko la ko signé woon te Abdoulaye Wade bi mu wàccee léegi matagul vingt cinq ans nañu ko delloo phosphate Matam mu liggéey ni mu ko doon war liggéey xaalis am ci réew mi mu jël ay doomu sénégalais di leen fay nam ko daan defee ñuy liggéey ku nekk gis ci seen bopp dem na fa dem na Matam kon xam na ne phosphate boobu Cheikh amara ko moom gis na faa yëpp parce que Omar mooy naar feq bi moo doon sàcc xaalis bi di lekk Omar Sarr dañ ko war a audit Ousmane Sonko Omar Sarr woo leen ko parce que phosphate Matam bi li mu daan dugal ci xaalis kenn mënu wax nu mu toll te lépp nag da koo jëloon di ci teg ay dil moot kari du wage jël phosphate bi bu ko jox kari du wage bu ko nangu ci loxoy Cheikh Amar ci lu nekkul ci papier te lu nekkul ci yoon parce que président bu fi xas ba signé décret dara mënu koo dindi xam nga Abdoulaye Wade bu mu signé décret ne kii laa ko defal président bi fi war a toog sax mënu koo dindi parce que luñ lu président ba fi jógee kii la fii dat ba jeexul waroo ma ngi noonu 25 ans lañ ko signé te 25 ans yi Abdoulaye Wade bi mu wàccee léegi daa mat 25 ans waaw pourquoi pas na dem dox ci loolu ñu jàpp Omar Sarr audit xaalisu phosphate bi nga xam ne doon daan nañ ko ci liggéey ñu génne ko. ak Cheikh Amar li mu def ci réew mi. waa Tiwaawan waa Kaolack waa Touba tey li si xamad di dund nii billaahi wallaahi wataalaahi waroon nañ cee génn ñoom waroon nañ sëñ Bass Abdou Khadre kenn waru ko woon jiitu ci président bi fi jóge ne ko Cheikh Amar kat dama bëgg ngeen jox delloo ko alalam jox ko xaalisam sëñ Bass Abdou Khadre amul lu ko Cheikh Amar defarut moom mooy porte parole yoonu murit tey bu gisee ne ab taalibe sëñ Touba di taalibe bu am doole ci kër sëñ Touba gisatuñ ko ci liggéey eh, liggéey bi nangam nangam déggatuñ ko ci état bi déggatuñ ay marchés man porte lu yoonu murit te ma seqat moom teraanga mu defal ma loolu ne te sëñ Tuubaa tax damay sol sama dàll dem ba ca pale ba donte seq naa ko moom ne ko nag damaa am loo xam ne maa ngi koy gis man sëñ Bass Abdou Khadre ginnaaw bu ma sëñ bi yabalee ndax lépp lu muy def ci kàddu sëñ bi la dafa am suñu benn taalibe bu naan Cheikh Amar te da liggéey ci si yéen dama bëgg ngeen joxaat ko liggéey nangam nangam bu ko defee ñu xam ne waa Touba def nañ seen liggéey Tiwaawan kazaalika Cheikh Amar amul nag am lu mu dugalut Tiwaawan Kawlax amul lu fa Cheikh Amar dugalut kon ñun ñi nga xam ne ay sëriñ ñoom ñoom lañ ñun ñoom la ñu yaakaar seeni taalibe bu ñu amee jafe-jafe yéen lañu war a gis di am deet sëñ bi fay na comprendre nga bu fekkee ne yow say taalibe da am na jafe-jafe fii ci àdduna lijjantiwoo ko ah yow man xiyaam de ah heure ba Seexul Xadim la ñu gëm heureusement ba Serigne Saliou woonu defar kon nañu ko jàppale Ousmane Sonko Cheikh Mouhamadul Bassirou jomaa Diakhar fay mii jom mooy fay nanu gestu Cheikh Amar waxuma ko nag en tant que mbokk waxuma ko nag ngir deret dama ko wax ngir lan pour doon euh, citoyen ci réew mi dama ko wax ngir lan gis njariñam gi mu am ci réew mi benn nit am cinq entreprise ci benn réew ah ñiy liggéey ci entreprise yëpp ay doomi réew mi lañu doomi réew mi lañu nga am phosphate am TSE am TRE am ABE am TS automobile cinq entreprise ci benn jëm mu am ko te entreprise am yëpp taxaw ndax la ñi ko daan jox marché yi liggéey defuñu ko aji nañu xoolaat Cheikh Amar ñu gestu ko xam-xam baa ngi fi expérience baa ngi fi activité bi mu daan def ma ngi fi ba léegi tam ma koy man te képp koo xamante ne que yaa ngi nekk kër Cheikh Amar at ku mu mën a doon ñu xam ne yow mii ci ñi nga doon yàq Cheikh Amar yooyu ba ci soxna ay jabarat yëpp ñu xam ne yow ci ñi nga doon yàq Cheikh Amar ci nga bokk ñoom ñëpp dañuy lakk seen gat waaw incha ci kàttanu yàlla kenn ko kenn laa la beaucoup jërëjëf délégué maa ngi lay sant en di la di la remercier bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga tàggoo waaye itam sant gërëm ñi nga xam ne euh, taxawu nañ ci say ci bis bi waaw jàpp ci bis bi ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di gërëm euh, Doro Gueye Xippil Xool dama ko fàtte mais wax dëgg yàlla def na lu am solo ci bis bi yónnee na délégation bi nga xam ne ñooy waa Xippil Xool ñëw nañ ah, ñoom ñëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla maa ngi koy sant moom Doro Gueye di ko jox waayam di ko ñaan suñu borom yàggal ko tam wér di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di nuyu yëpp ñu bëggoon na ñëw te ñëwuñu di ñuy ñi nga xamante ne ni que ñoo ci internet bi di commentaire yu négatif di commentaire lu positif maa ngi leen nuyu di leen siyaar di leen baal ak ñoom ñëpp billaahi wallaahi wa bu dee mos na maa lire commentaire yàlla moom gis sëñ Tuubaa waaye képp kuy commentaire lu négatif jëmale ko ci sama jëmm ji képp kuy commentaire lu positif jëmale ko ci sama jëmm ji yàlla yàlla sàmm te aar la jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko remercier tey nag ñu amoon mbégte dalal ki nga xamante ni moom mooy délégué Amar ñu jàpp ni nag kàddu yi nga xam ne jot na ko fi yëkkati amal na leen solo bu baax ñu ngi koy sant di ko jaajëfal bu baax a baax sant internet yi nga xam ne ñoo ñuy topp saa su nekk jox leen rendez-vous beneen yoon ci beneen daje jërë ngeen jëf